li ngay bañ a dégg <laughs> voilà <laughs> mais mais mu ngi noonu kooku noo ko noo ko tuddee. alors te loolu c'est loolu soo mayee tuuti rek ma développé. Mhm. li muy indi mooy déjà ñu am contentieux électoral te demaguñu fenn. demaguñu fenn am contentieux électoral imagine un million presque de Sénégalais jóg ne dañuy wote ji nga ñëw dugg sa bureau de vote ñu ne la non fii sa tournée wu loolu loolu mën naa indi mën naa jur ne mën naa jur ne loolooy indi problème ci réew yi nga xam ne fa lañ nekk. solution nga ma wax parce que war nga maa laaj solution solution bi mooy recours bi nga xam ne jox nañ ko conseil constitutionnel mu jàng ko ñu rectifier bu fekkee ne yéen seen logiciel boobu ngeen yor logiciel boo xam ne da ngay dugal say données mu lay changer turi yi kooku ban façon logiciel la. Ah, mais léegi est-ce que. avec des preuves mais timing timing bi may na la loolu. est-ce que may na la nga rectifier mais bien sûr ñu reprendraat non est-ce que loolu du dem ba reporter élection yi bu boobaa non non non non loolu mën nañ koo def ci jamono ji ñu toll nañ ñun nañ ñu woo en une heure de temps ñu ñëw ak suñuy bagage ñu xool léegi ngeen déjà ñu delloo suñu région mu ngi woon ci mu ngi woon ci biir ci biir ci biir ci biir club yi ak ñu ngeen laaj ñu indi leen la preuve ñu indi ñu xam nag aussi d'abord ban logiciel euh, ak logiciel bi nu mu nu mu bindoo logiciel boo xam da ngay dugal sa donnée mu laaj nii yow lañ ko war a laaj vraiment. yow li laaj nii dañ la ko war a laaj. parce que loolu a wax. non ko géré wul woon en tant que en tant que conseil constitutionnel ou nga ko géré woon en tant li ngay may war a laaj. mooy li ngay wax nii yëpp li may wax nii ci logiciel bi su la am. mosuñoo logiciel boo xam ne boo bindee Pape mu yokkal la ci ñaari A musuñu ko am loolu musu nekk ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de ce pays ay wax naa la kañ la biñ demee élection yàggul 2022 wala 2019 mosoo am ñu ne la la moitié des candidats ne la su su may pare may parrainage dañ ko jël am xamuñu fu mu nekk contentieux bi mosu fay am kon ci wàllu solution conseil constitutionnel nañu nangu erreur l'erreur est humaine ah bu fekkee ne erreur la bu fekkee ne erreur la humaine war nañ ko mën a rectifier bu fekkee ne nag processus d'élimination la loolu beneen mbir la loolu aussi réponse bi dinañ ko indi parce que duñ toog rek voilà injustice di dal suñu kaw plus de la moitié. d'accord mais réponse bi di ngeen ci wet de parce que ñu bari ci ñi nga xam ne ñoom ngeen loon ci xeex bi validé nañ leen après ñoom tal nañ leneen fi mu nekk. waaye mais ci groupe bi sax am nañu ci bokk. Ah. parce que sélection bi jeexagul ah te aussi. Euh, li nga wax sélection ah. bi jeexagul mooy. par exemple sélection bi jeexagul mooy lan nga bëgg wax ci li nga tuddee sélection nga ne jeexagul. non dama ne pour man mën naa bañ a jeex. Ah, waaw parce que on xam nga bu fekkee ne da ngay traverser géej comme tant que yeggaguloo rek <laughs> bul jàpp ne risque amul donc ba tey ñu ngi ensemble. parce que nag aussi mais xam loolu c'est normal xam nga ni parrainage bi benn la ci pièce ci vingt ci neuf yi neuf pièces yi ñu na yeneen am na yeneen i pièces am na yeneen. am na yeneen i pièces. d'abord d'abord processus de sélection boobu nga ma euh, invité sax commencé na bu yàgg Ousmane Sonko mii dañ koo ber loolu du sélection loolu du beddi compte. sélection donc commencé na bu dee moo bi nga bëgg sélection ba ma nga commencé ci Ousmane Sonko ñaari juge ne jox ko jox ko jox ko ay parrainage am muuti ko nga ne non du ma def loolu foofu la com foofu la tàmbale pour commencer. te teeloon naa addu ne nañu moytu. mais ba tey euh, avocat am yaa wax loolu mais avocat am waxul loolu avocat am li mu wax mooy. Ah, Ousmane Sonko dara du ko tere nekk candidat ñi àndal même ci partem loolu la ñu wax. yow yaa jàpp ni éliminé nañ ko mais ñoom jàpp ñu loolu. ñoom li ñu jàpp mooy seen. bàyyil ba ñu ñëw toog yow nga wax ko. mais li ma la bëgg a wax mooy sélection ak élimination tàmbale na avant suñu waxtaan wi dégg nga li la wax ñaari ñaari ñaari ñaari juge Ziguinchor cour d'appel cour tribunal grande instance de Dakar jox leen kii euh, parrainage ñu ne noonu du ñu def loolu loolu nu mu tudd élimination la ne woon naa nañu moytu. élimination judiciaire ak élimination du doublonnage on y est en bi ngay défendre nii tey. moo doon wax Mimi doo campagne tata Mimi doo campagne. c'est-à-dire loolu la doon dóor. Mhm. c'est-à-dire yaa ngi koy défendre. d'ailleurs loolu sax xaw na viral la temps yi fi mu nekk nii. c'est-à-dire lan nga mën a expliquer par exemple. proximité bi rapidement ak l'opposition notamment Ousmane Sonko. mais troisième mandat on s'est battu ensemble hein? c'est les les deux sanctions en même temps troisième mandat bi ñoo créé ndoo F24 ñoo nekk ndoo biir fit mu ngi d'ailleurs ci liste quarante euh, quarante deux candidats ah. <laughs> mu ngi ci ak euh, ak ak Diomaye donc combat yi nga xam ne Sénégal la ñu boole mun mu nekk ci injustice aussi noonu la demee donc sélection bi commencé na comme moo bi boobu ngay ni commencé na ca moom la tàmbalee di raam nag di dem loolu aussi mooy delloo suñu démocratie ginnaaw man c'est ce que malheureusement je constate fin wu régime wu président Macky Sall dafa ànd ak régression démocratique boo xam ne kenn mosu koo gis maanaam démocratie di dellu ginnaaw coow lu mel ni ci élection mosu fay am wax naa ko sama baat ca kaw nga am listu candidat genn wàll ga ñii ngay porter plainte euh, ñii nga ña ngay recours mosul am donc la ñu war a def mooy vraiment ñu rétablir nit ñi ci seeni droit jox delluwaat ñu suñuy parents nañ jàpp ne dañ leen làq boog loolu nga bëgg a wax kon suñu parents yi ñu làq nañ ñu ko delloo boog nañ ñu ko delloo ñu compté waat ñu ko man dèjà kaay ma wala soo nee nit ki euh, valide na 38 euh, parrain nga ne 10 000 38 000 parrain 10 000 parrain am euh, feeñu te ña nga fa région de Saint-Louis dindi la ñu non mais évidemment c'est-à-dire xeex boobu sax xeex bu métti la terewul ñu jàll sax ci deuxième tour ba mais loolu moo war a jeex ci ci ci moi je pense que d'ailleurs musuma woon imaginer ne suñ démocratie dina yegg si fii kon balaa muy gën a sori di indi ay contentieux yoo xam ne dañuy ñëwaat toog fii ci seen table yi di discuter ay instabilité ak yu ni mel nañu ko corriger nit ñi ñu joxaat leen seen parrain ñi war a dem election ñu dem élection ci jàmm ak salaam sénégalais yi tànn ki ñu bëgg a tànn madame noonu laa gis madame le premier ministre nan nga mën a expliquer problème bi yëpp nga ko xëpp président de la république c'est-à-dire processus bi franchement élection lan moo tax nga bëgg ko xëpp nga jéggi li nga jéggi li nekk ci diggante bi xëpp ko président Macky Sall pourquoi. ça naka nga ko mën a expliquer en en tant que. Oui, c'est le, non mais c'est le c'est le c'est naka la ko sama papa Hadj Mansour doon waxee. le gardien la la clé de voûte. Ah, le gardien de la constitution le gardien de la constitution n'est-ce pas. conseil constitutionnel moom moo leen nommé. ah nga doon ko xeex mais amul lien amul lien mais nga doon ko xeex mais xeex ba. <laughs> voilà continué wuloo ko xeex amul amul lien conseil constitutionnel moom moo leen nommé donc sañ naa wax ak ñoom. sañ naa wax ak ñoom non cest à li ma wax mooy. fii régime présidentiel la ñu nekk non non non taxaw rek ba taxaw foofu ba que am solo dafa solo li may wax euh, logique la président Macky Sall moo leen nommé ñuy conseil constitutionnel. am na sañ-sañu ne leen dossier bi nga xam ne dégg naa la ñu cay wax bàyyi leen leen ñu indi seen i preuve ñu delloo nit ñi seen i parrain ñu dem ci élection ci jàmm ak salaam lii may wax kay yomb na wax dëgg yàlla indi leen seen preuve mais bu ñuy wooye ñu ñëw indi suñuy preuve ñu indi fichier bi waa Sénat toog conseil constitutionnel toog DGE toog ñu xool fichier bi nga xam ne moom la ñuy contrôler anamu li ñuy laaj c'est pas du du du du yëfu jinne c'est pas sorcier waaw fichier boobu yàlla fichier bi problème bi bokk nga ci ñi ko njëkk a révélé ñaxtu ko c'est-à-dire jàpp ni fichier 2017 la. non man li ma wax li wax mooy fichier bii question sax laa posé fan la jóge teguñu ci 24 heures Sénat ne ah man fichier bi ma am parce que ku nekk yaa ngi dégager sa responsabilité parce que ñoom gis nañ li mu mun a jur ci wàllu problème Sénat ne man kat fichier bi ma yor nekkul à jour. Mhm. ci suñu mbokk yi dégg wolof nekkul à jour mooy am na ñuñ ci war a yokk te yokkaguñ leen ci. mais am na ñuy wax ni fichier boobu moo tas ba ñu bëri dem ut ci ay parrain kii tibbe fii kii tibbe fii ba loolu moo indi problème doublon yi indi problème moom li ngay wax élimination yi loolu itam ñu ngi koy wax. ah yaa ko wax de. waaw ah, mais dama ne eh, loolu moom yaa ko xam nga bu ma ko waxee xam nga ne am na fu ma ko déggee. par exemple fichier boobu moo nekk ci mbedd bi tasaaroo ah, moo tasaaroo. ah très bien yow a a nekk. moo tasaaroo ah très bien. kon loolu duñ ci ut solution. solution bi xam nga lu muy doon mooy ñu toog recours bi ñu jël ko au sérieux teg ko Sénat ñëw ak li mu yor DGE ñëw ak li mu yor conseil constitutionnel ñëw ak li ñu yor candidat yi ñëw toog ñu xool fichier ban la ñuy wax fichier 2017 la ñuy wax wala bu 2019 wala bu 2023. ndax wax dëgg yàlla ki bu fekkee bu fekkee ne bu mais mais xam nga ni fichier bi moom 15 jours avant les élections ku nekk dina ko jot loolu ñëpp xam nañ ko te boobaa dina leer ban fichier la ñu yore. ah boobu boobu fekk ñu nga mais xam nga ni loolu moom loi bi moo ko wax mais Pape yow li wax xam nga ne vraiment loolu xel mënu mënu koo nangu cest à ñuy toog ba ñu éliminer ñëpp man ma yoroon sama ay parrain yu yor seen carte d'identité ak seen carte d'électeur ñu ne bokk leen ci ñu xaar nag ba élection yi une semaine a ci des euh, ñu soog ne leen non non yéen mënu leen a wote yéen non déggoo ma ne la ba ñu compter ca salle ba kii ne man 10 mille lañ ma jël kii 20 000 kii 452 000 feeñ nañ foofu ay gars ne eh mais fàtte ngeen ñun ne suñu clé dañ ko ubbiwul sax ku ci ne cinquante mille parrain nga yoro muy fa ñu toog rek neuf cent mille sénégalais douze pour cent du fichier la wax de douze boo amee sa score loo ko ci teg nga jàll. te yaakaar nga te yaakaar nga ni ñooñu ñëpp li ñu wax noon noonu lay demee ku ci ne say parrain amul benn problème. waaw mais lu tax du ñëw saytu ko nañu ñëw toog <laughs> wax dëgg yàlla joxe nañ ay preuve ba ci Mary Teuw Niane ñun dañoo amoon cas zéro bu ñu nee benn Ben voté 2022 changé wul bureau de vote changé wul tour changé wul sant mu ngi carte électeur am ñëw ñu ne ko newoo ci fichier bi gisuñu la Mary wu Niane quand même quelqu'un de sérieux ministre de la république la woon yor listam dem fay caution am ah joxe ay këyitam collecté ay parrainage am ñu ne ko vingt huit mille sa vingt huit mille nit gisuñu leen ci fichier bi dont lui moom ca la bokk Pape bu fekkee ne rek du affaire u dañ bëgg waxtaan wi neex yoo xam ne dëkk bu mu am ñu tegaat yëpp à terre. mais mais madame la madame la ministre. Voilà. madame la ministre da nga fi jiite ay ay ndombo tànk yu bëri. Mhm. par exemple donc notamment la justice di doxal. Mhm. c'est-à-dire doxal boobu tey bu ñëpp ñëwee bëgg la ko reprocher li nga doon def da ko doon def ci ama neex wala da nga ko doon def ci nangam mais loolu nan nga koy dundee bu boobaa. waaw mais man mosuma euh, lii mosu fa. mais li ma li mais Pape c'est-à-dire aussi bu ñu des sur place ci lii nga bëgg mu des nañu adresser la situation. nee naa la coow li fi am musta am deux amul 2012 ci temps wu président Abdoulaye Wade amul réélection président Macky Sall amul élection yu fi mës a am te contentieux yu muy amul non non élection non bu ci ne ak ak mu toll par exemple ak moom xam li nga xam ne moo fi nekk li nga xam ne nañu yégal yëf yi parce que ñu koy benn bennal nañu yégal voilà discussion bi lii fi nekk musu fee am de de de de mémoire de démocrate au Sénégal mën ko yégal ba génne ko ci parrainage voilà non parrainage bi lii ñu ci wax mooy li ci nekk liñ ci wax mooy yiñ ci nekk ay nit jël nañu seeni clé changé nañ ko man mii ci laa bokk débat bi mënuñu deuxième bi deuxièmement bi jël nañ seen ay parrain ne ay nit ñii ngeen indi gisuñu leen ñu ngi seen carte d'identité ak seen carte d'électeur mu ngi nii ñu wane ba ci ab candi ñaari candidat ci seen bopp ñu yor seen carte d'identité ñu ne leen nekku leen ci fichier bi waaw loolu loolu du problème sérieux pour le pays bu ñu ko nax saxalee euh, ñu ngi ñu ngi ubbi yoonu Euh, bu bu bu baaxul. non non neuf cent plus d' un million de sénégalais pratiquement yoo xam ne yii naru ñoo wote ji kooku problème lay indi ci réew mi looloo indi problème ci li nga xam ne mooy mooy mooy tas réew yi te bëgguñu yegg foofu. comme bëgguñu yegg foofu conseil constitutionnel ñu jël recours yi jàngat ko ñu indi fichier bi nga xam ne mooy fichier bu baax bi ñu contrôler ci nit ñi loolu mooy li nga xam ne mooy li war a nekk. léegi madame le premier ministre li nga wax mooy kon nañu reprendre procédure bi loolu nga bëgg parce que bokkuloo. non Pape euh, yemalewu ma ko ci suma ci suma bopp bien que man li ma dal injustice mënu koo weesu mais maag président Macky Sall c'est pas la première fois dàq na ma assemblée nationale supporté wuloon sax ma nekk assemblée nationale dàq na ma fa de manière illégale nangu nañu sama ay parrainage effacé nañu suma benn région euh, mais loolu man mën naa koo dékku du problème mais lii dafa di problème bu gën a sérieux d'abord quarante et un euh, groupe boobu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñaxtu loolu ba noppi pratiquement sorewuñ un million ah yoo xam ne dañ yor seen carte te duñu wote ji loolu mooy li nga xam ne moo fi nekk ba noppi nag suñu image yu dëkk xaw ma ndax yaa ngi xool nouvelle internationale yi vraiment image Sénégal mu ngi yàqu parce que ñun xamoon nañu dem ci élection sans contentieux jógaguñu sax ñu ne contentieux la moitié des candidats coow li ci ab fichier euh, ak yu mel yàq saa yu président Macky Sall ni muy génnee ci Sénégal moom moo rafetul ci man. dans un contentieux. dans un contentieux boo xam ne bii vraiment mënoon mënoon na naa ñàkk. démocratie bi di dellu ginnaaw surtout ci wàllu élection loolu c'est la réalité. mënuñoo politique politique mais madame le premier nan nga mën a expliquer démocratie dellu ginnaaw ñuy dem ci élection mu am filtre am parrainage mais loolu nan nga ko mën a expliquer loolu mais filtre kay mais il faut mu am ñu jàll ak ñu dul jàll. absolument mais loolu kenn kenn werante ko moo tax ma ne la parrainage contre ma ko li ma contre mooy lii ñuy def ubbi clé wu jàmbur yi changer données yi effacer yenn données yi bon Abdourahmane wax na ko indi preuve Diomaye fay wax na ko indi preuve man wax naa ko indi preuve ay dëmbooj wax na ko indi preuve je peux continuer ba muy 41. ok loolu defe nga ne noonu la ñuy demee élection. loolu mosu fee am te président Macky Sall. ma ngay bàyyi image di génn ci image boo xam ne bi euh, musta am fii ci Sénégal loolu man ma sama conviction la. alors léegi nga ni politique bi lii génnewu la ci. même boo bokkul ci parrainage bi bokkoo ci élection yi yaa ngi ci loolu nga wax non. bien sûr nan nga ci bëgg a nekkee nan. waaw ah mais loolu maa ngi maa ngi maa ngi euh, wax sumay camarades mimi. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér wóor.